interview parce que ak calmité au assemblée il am xadaar bi il faut nga mën a am yenn kii est-ce que yow ci sa wax ji nekkul da ngeen nag di corriger gars yi. de l'eau qui dort. <laughs> sama français sorewul de. waaw troisième laa yem. waaye tubaab yi nee nañ méfie-toi de l'eau qui dort man ñi ma xam ci politique su ma jàkkaarlooy ak ñoom sama wax bareewul de waaye billaay bu ma nee bëreet ba taxaw ñëpp may déglu. parce que xam nañ duma waxantu man duma waxantu man duma waxantu te su ma duggee assemblée dinañu xam ndax damay waxantu wala duma waxantu bés bu ma ŋaan dinaa teg lu wér ci taabal bi loolu lu ma leer la man même réunion su ma demee su ma neexee dinaa toog réunion ba mu jeex du ma ŋaan parce que lan la du ma wax pour wax damay wax luy dugg ci nopp nit ñi man noonu laa mel léegi nag ku xalaat ne man su ma demee assemblée damay nelaw moom la engagé mais man man xam naa ni moom mi ko wax su ma taxawee maak moom bu dee wax bu dal rek dinaa wax te dinañ ma déglu parce que ki wax pour wax ak kuy wax pour ni ñi déglu ko duñ benn. def na sa classement moom premier mooy leaderam Kawsu Cissé yéen deuxième. Euh, Pastef troisième dem naa ba ne sax yow mais mais yow est-ce que bu Boy Town ñëwee affaire bi changé parce que Boy Town moom ñëwee fii changé na affaire bi moo lay moo jël première ah ñoom ñu jël deuxième ñëwee troisième léegi yow <laughs> est-ce que man dama parce que lii xam nga dañoo ne euh, d'accord Mame Boye Mango mooy candidat mais aussi le maire a un défi pour confirmer parce que nee nañ amul nit te yaakaar la yaakaar nit ñi ak yow moo tax mu jël na. ñu ne amulay nit xam nga la amul fa dara yow guddoom moom jaru nga yaakaar peut xam ne guddoom fii jaru nga yaakaar dara parce que toj nga fi waay yow tamit nag yow ku lay yeewoon ci ay nelaw mu ne la guddoom le maire amu fi dara nga gëm lool te ñu jóge léegi léegi léegi léegi ci local jóge léegi ci ay législatif suñ la nee le maire amu fi dara ku koy wax moo xamul lu muy wax waaye ñun xam nañ li ñuy def. xam nañ lu ñuy wax lan la moom leader boobu muy wax ku ko ëpp man moom nekkul sax sama adversaire sama compagnon mais dina ma pousser tuuti ma wax ci kooku te waru ma woon wax kooku ku ko gën a ku ko ëpp kàngam moom ci guddoom fii. à la dernière minute. Mm-hmm. ne ma ñëwal balaa gaal gi di la raw parce que Joolakunda man maa ko moom ma ne ko Joolakunda bés boo ko jëlee nga xam ne man santuma maa ngi Joolakunda. te prouvé loolu au niveau des locales. Mhm. ko fii. moom la jëloon Souleymane Ndiaye. Ah, moom. surtout moom. jëlee la lan pour nga ñëw. Euh, waaw non attends. leader bi dafa ñëw pour bu pour ne nga ñëw ci moom balaa affaire di weesu moom day gagné léegi nga tontu ko lan. ko ba booba ba booba parce que nee na Joolakunda moom moo ko moom ma ne moom. dañu xaar ba ngoon si bu ngoonee dina leer ku moom Joolakunda. mais est-ce que pare nga pour confirmer loolu instant bi dinaa ko confirmer Ibaara dinaa ko confirmer xam nga lu tax. Mhm. nee naa la man communautaire la man duma xuloo xeex man cycle primaire def naa ko ba jógee école mosuma xeex ma ñëw def sama cycle secondaire ba def troisième te tëjee laa jàngee jonjee ju mu ngi fi duma bàyyi ma fen sama professeur français la sama professeur histoire-géo du ma bay ma fen musuñu wax kaay surveillance bintu moo fi def lii léegi nag bu fekkente ne sama teg kaaral boobu moo moo moo moo sonal nit ñi ñoom la engagé mais man su ma paree li may dox dama koy dox ci farata dama koy dox ci sedd ba am li ma bëgg te dinaa leen ko prouver encore soobee yàlla dinañ ko waxaat. ok léegi yow yéen a ngi waajal. pour meeting booy tànn war ñëw di nga mën mbooloo parce que parce que attention de. suba la rek. waaw mais instant bi dafa cher ak Pastef fële ñële te Joolakunda gis nañu fa demee noonu. gi mbaa du changé wala ba tey yow mën ngaa confirmer yéen ba léegi yéen a moom ku doon. waaw xam nga lu tax. buñ mhm. toll nii ku nekk ak li la engagé ku nekk ak li nga bëgg. ku nekk ak li ngay bañ ñun lu ñu bëgg mooy suñu lis takku wàllu mu taxawu askan bi hémicycle te bu soobee yàlla yàlla ñu ko defal amuñu waaye mën nañu parce que li ñuy wax population bi daf koy dégg te guddoom lu ñuy wax ñun luñu ñun bëgg hmm. population bi daf koy dégg mooy bu ñu demee hémicycle dinañu am taxawaay boo xam ne guddoom dina ci gis boppam département bi dinañ ci gis boppam soobee yàlla loolu su ma la ko waxee nga gëm ko. ah vous mm-hmm. avez quatre listes moo ne guddoom te gaa ne guddoom dañoo xaw a sew. Mm-hmm. guddoom mun nañ yaakaar ne nga yaakaar ne dañ lay voté dem ci biir bañ la voté. Mm-hmm. te daanaka liste Pastef seen candidat moo amagum doole pour l' instant te li maanaam bës quoi wax ji ñoom la féetewu yow tey noo jàngatee lool. am nañ ci droit. ku tudd Sonko kay. Mhm. xam nga ni Sonko moo yor bës bi. ah mais ñoom seen candidat. ah ñoom seen candidat ñu ko tudd yow dégg nga ko fu ñu ko tudd yow yaa ma gën a xam di. non non Mamadou. non Ibara nañu waxante dëgg rek. ñoom tudd nañ seen candidat kooku nekkoon na député. waaw nekkoon na ko certes man bañu ma ko. waaw te liggéey na. def na fi deux ans liggéey man gisuma ko. Mhm. man personnellement man gisuma ko ndax man bu dee wax dëgg te yàlla tax man su may seetaan télé hémicycle yi ma mus a gis népp gulle xaraa musuma koo gis benn yoon man personnellement ñi ko gis de ñoom gis nañ ko mais man gisuma ko ki ma gis mooy honorable Fat Dabo te kooku wax naa ko même hôpital bi ma toogee ma ne pourtant de li mu wax bu jege woon waa hôpital parce que jour bi ma koy seetaan wa problème hôpital la doon wax problème ambulance la doon wax ma ne ko bu jege woon waa hôpital am nañu yeneen lu lu gën a farataal loolu bu le bu ñu jege woon rek dinañ ko ko wax dinañ ko waxal dinañ ko expliquer loolu pour bu demee mu wax ko mu moom mosuma kaa dégg bu dee wax dëgg te yàlla tam man de mosuma kaa dégg bokk man moom wax dëgg yàlla man xaw ma ko man benn yoon laa mos a daj sa moom ci département bi fii gudam fii benn yoon mooy bi ouverture daaw la xaw ma daawaat jéej hmm. laa dajeeg moom fii lycée waaw man ci laa koy soog a gis mais lan euh, ji kenn du ko tuur te pourtant waa jaa ngi la ko problème bi quoi. maanaam loolu de xanaa ma laaj la ko yow en tant que journaliste amaana yow di yow di nga ci am li ngay wax mais man amal ma ci wax dëgg yàlla man xaw ma parce que xam naa ni tey bu fekkonte ne man war naa mën a nekk deux ans assemblée mm-hmm. may wàcc si fii ci guddoom nit ñi di laam-laame kuy Mame Boye Maang wala kuy Bintu Maang dinaa laajaat sama bopp lan la. dina laa jaat sama bopp man en tant que communautaire man maa la seede loolu demal fu la neex ci département bi boo fa taxawee nga ne madame Fall wala nga ne bint Mambay Manga kuy liggéey hôpital dina am kenn ci dëkk boobu ku la ne man xam naa ko te wóor na yàlla dina la dina ma seedeel lu baa waaw loolu man sede naa ko te gëm naa loolu fu la neex nag demal yow en tant que journaliste hmm. man maa la jox défi boobu demal def ko. te dew ma hémicycle kon nga yaakaar man suma ma demee hémicycle dinaa fi ñëw nit ñi di ma laam-laamee moom la wala du ma xalaatuma ko yow tamit nag xalaatuma ni ne demee euh, di war a waxtaan a yéen ci émission Dame Pouran Dame Pouran nag euh, daanaka mën nañ émission la boo xam ne euh, département bi yëpp a koy seetaan ñëpp a koy seetaan di wax leen partage leen like leen seen vidéo madame le maire Euh, ñu ngi émission bi jeex na te nga war a wax sa message sa kàddu bu mujj mhm. ci émission bi voilà ñuy ba beneen yoon mhm. di ñaan yàlla jàmm am Sénégal di la félicité di la jaajëfal ndax yow maag yow démb la tee soog a ñëw mhm. mën naa wax tey ñi ma lancé si département bi yow da nga cee bokk donc maa ngi lay nuyu di la gërëm di la jox sa wàccuwaay di nuyu mboolem kilifa diine bi nekk ci département Goudomp particulièrement commune Goudomp di leen nuyu di leen tatagal di leen jox seen wàccuwaay euh, di nuyu samay naatango ñi ma bokkal liggéey mm. ñi adjoint ay maire nekk ci département bi di leen nuyu di leen tatagal di leen jox seen wàccuwaay particulièrement sama doomu ndey sama mag sama xarit mm. muy madame la maire Khady Diallo kooku bokk na si ñoo xam ne daf may jox ay conseil su bëgg ngoon day xëy dima ma ne Bintu da am avenir donc da nga xam fi ngay teg sa tànk kon so amee genre mag boobu da nga ko war a gërëm maa ngi koy gërëm di ko sant di gërëm sama maire Goudomp le premier magistrat de la commune de Goudomp man damay xel di ko ne xam nga yow yaa naan boy taawa mais man Saint-Louisien laa koy woowee ndax euh, ndaanaan la ndaanaan ku ko am da nga war a xam ni ndaanaan nga yor kooku maa koy nuyu di ko jox di ko gërëm di ko sant di ko jox wàccuwaayam di di gërëm staffu dep staff bi nekk bi may liggéeyal di gërëm tamit sama naatangoo mi nga xam ne tey moom lañ ma booleel liggéey bi muy yorombaalo mbarodi voilà la mbarodi kooku beneen beneen beneen nit la ah. euh, di gërëm sama président conseil départemental ak staffam bi ak maire yoo xam ne tey ñoom ñoo fas yéene xeexal ma ci département bi y compris Ibou Diallo ak ñeneen euh, maireu Mangarungu bi ancien maire yi nekkoon fii ci département bi donc ñooñu ñëpp maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox seen wàccuwaay di gërëmaale sama chéri koko sama jëkkër fii nga xam ne sonnul benn yoon ci man euh, di ma jàppale ci lépp li may def ak sama waa kër di ma jàppale ci lépp lu may def suba ba ngoon ñu ngi xar seen tànku tubee pour jàpp si combat xool ni may def xool ci li may dox xool ci li may dem ndax lu rafet la wala lu bon la bu dee lu bon la ñu jéem a xool ni ñu koy ràndalee mm-hmm. di gërëm waa Joolaakundaa parce que aw ma ñu dul ñoom Joolaakundaa te lu ma am ñoom ñoo tax ma am ko donc maa ngi leen di gërëm di leen sant di seen wàccuwaay. gërëm la maire Boy Town di ko naan kontaan nañ ci yow euh, di gërëm aussi kilifa yi fi nekk yëpp euh, di gërëm fi nekk ci région de Sédhiou euh, di wax ne chaîne chaîne la YouTube Ibara TV tey dañoo ñëwoon war a waxtaan. Euh, ak madame le maire euh, Bintou Manga fii ci Jolakunda mooy candidate à l'élection législative prochaine te war a dem péccu ndaw réew mi euh, teewal Goudomp foofu représenté département de Goudomp foofu moom na waa coalition takku wàllu ñoo ko investi am yaakaar ni aussi candidat yi jël tànn yëpp yàlla ki mu war a tànn rek na ko pare mais ki mu jox ndam li nga xam ne jël na ndam li Euh, ñëpp ànd doon benn ndax Goudomp la te ñoo bokk lépp euh, di gërëm aussi la jeunesse de Goudomp kilifa yi euh, di gërëm aussi les autorités les responsables politiques aussi de Goudomp ñëpp ah aussi ñëpp ci kaw bu ci suuf ministre beeg le maire président conseil départemental ñëpp parce que Ibara amul xaj ak Ibara ñëpp la fi nekkal hmm. lépp loo xam ne gëm nañ ni dina mën a taxawal dëkk bi rek lañ fi ñëw waxtaan fi nekk ni liggéey liggéeyee la lañ fas yéene ànd ak ñun pour Goudomp dox Goudomp avancé di ñaan yàlla na jàmm yàgg Sénégal surtout Goudomp mm-hmm. mm-hmm. di ñaan élection yi mu apaisé wu képp koo xam ne yàlla jox na la cër bi nga moomoo ko nga xam ne aussi yàlla la jox ndax kilifa kilifa lay doon te kilifa kilifa yàlla la ndax yàlla moo ko tànn kon yàlla baax na ba beneen yoon à plus di nuyu sama caméra bu may Bintu Cissé di nuyu Souleymane Keyama di nuyu Rama nga xam ne moom dafa ñëw tey problème bi commencé. comment mais man fi may ñëwee nga ma permettre aussi nga wax tuuti ci man rek parce que émission bi jeex na presque. bi naatara yende min folo e mbaɗi mandinkoli ana joola kam fona domoni pour que yele kartota yaade simlol fof noon njepin fono ha ko si min mi yaga jikila ko ni ni ha ki jana be be lo nyal e barante se fin fo ku dom nga fole ko man to jani sura kan ko nka do ko ke to dimin da mun be hospital to ngalon kele fula ekolo se ku fono jet certe bi gudom pajant abi provisoire o tijan bar ni dun département kon akutije n b'o ko kɛlɛ la paseke n ne bi ni dindiŋo mun ye sɔtɔ kɛ a baamaale y'a ti na bata tan bɛɛ dindiŋo kan mun baama a t'a bolo bari ni a bɛ mun baama a bolo a ma yɔb kabata woto mun na kɛr'o le ti sabanjɛw wolon bi agriculture ti ni dun ta ɲin département to ɲi heure i bɛ man la i jardin kɔnɔ woto n bɛ kɛlɛ ɲa fo bi wo musol ye autonome fo ni ye la dookuwo min kɛ ye kuu sɔta kɔnɔ i la bata da ye kuu sɔta kɔnɔ mu yalan a bee maako la le fo janni jaari ba dun naa dookuwo kɔnɔ kɔtɛ mhm. wo kelo boo kela le ñiŋ teemanto pomo feŋ feŋ mu ye a la i be gudom departement to niŋ ye kili ko i ko saama i bi taa seeju bii ite siinoo la parce que i be miidoo la i futa ñaa seeju nkoye bii dindiŋo dindi muŋ bataata i ba mama sotoke bari na ye sotoke buka bata wala ye tinanko ye konna priorité santé lo fulanjaŋo agriculture sabanjaŋo école ok uh, euh, saf ko palon ko jola kammi département ti kudom ni saf ko linum ni saf ko ñolom ni saf ko tiyom ni saf fo groupement mbo yanuma nje yoydi département ye ña yoydi communauté kudom nisaf uh, organisation konen ka bonketor paske jat ijuk ujuk jani baj wani bajna jat di commune ñam ka bonketor kurambe norom koku lansom yaki bajro donc njombe safi ni rego beto atiyo anyolo akammi momboy manga na yabode suketi gudom buka ka lini buka ka ti buka ka nyoli buka ka barini a barindi ondeeregu meti pour département ti gudom on ɓe law manji vote coalition ken konem takku wallu to ko investirom liste titulaire jaat i kan député emite rambino mi kane député bugala ɓe ta ñila jola pambu département e ñam bugala ɓe ti ano département e ñam wa fu feegi wo dinje wonumanje wo kawnora kumbo keti yila ko ja kajom di hémicycle wo pankandi pambokka di ka yega kumbom wa kammi santé parce que nje hôpital ni lorkem en tant que communautaire a matron eti hôpital eti jaat eti gudom ni manj wandom pi yek pour ka karanga ke kunyilak parce que jaat ire gud gudom parce que bo bagut abi provisoire bare awno kene di département e ñam pour tok ba des avis provisoire donc ro bokka bokka ɗi wani je ɓe yek bo gala bo kila pi yek bo pour man bo ban di département e ñam o feginte naw ay non buroka be karamba wakam buroka bet si toles be ku sekak ku sekak jatuji ke département e ñam koku galem koku rokem bitap koku rokem si toles kon ro bokka bokka ɗi wan manje pi yek man ku seka ku kila pop ku man ku yolaf ɗi buroka boli mante kubajjo jat fuyola foli dukuŋolen kuranben kuñila koli wo ma wimawum berege pop wo bokka bokka di point ti temanto jat wula tukammi di département ti tema di département ti gudom anasan kuregi bu jomore mba fukara meti kajom aw be jaw seju be tebiya pambujo waje be kajume be tebiya mujembe kane murin seju etipe sumut anasan namany mete etipe sumut kullim bunu limena puri ngunde futinga wo jom mukop waje mbaka gitu miyak donc wo boka boka diwan manje pi yeg wo kajo mante be ka finto mante be ka kuntu mante be kambu pour wo mango nuni ngu di departement ti gudom njombe sakku palu